àllarba euh, fukki fan ak ñaar ci weeru juillet ci atum 2007 am na ku toog fii ci ñi moom ak sama soxna médecin yi ñëw ne leen du ma fanaan ñaari fan avant fête nationale France dañ leen du ma fanaan. maanaam amatuñu yaakaar du man lañ ko wax de ñoom lañ ko wax booba ñoom ñi ngi ci salle d'attente bi. man boobu maa ngi ci néeg bi maaseeg lal bi mënumaa wàccal sama bopp lal bi ah, sëñ alaaji baara mbàkke fàllilu yàlla na suñu borom yokk leer booba xalifu sëñ fàllu la woon woo ma téléphone booru 18 heures heure foofu ne ma na nga def ma ne ko maa ngi tane mu ne bàyyil tane bi te wér wér rek ñibbisi rek ah, maxam mii may àndal dugg si ci biir booba yëg na la mu yëg wax nañ ko lañ ko wax mu bëgg maa won ne am na lu xew mu ñëw di jooy ma ni ko looy jooy xanaa dëj dafee am mu kon ne jooy ma ni ko billahi wallahi wataalaahi ma limal ko ñaari nit ne ko dinaa fekk seen dëj alo hmm? loola lu ñu dund la ah, ca suba ga ci fajar kon xam nga fanaan na ñii jël deret ñëw di jël sama dama dàq leen ñii indi ndekki ñëw ma dàq leen lu médecin chef bu ñëw ma ne ko damay génn mu reetaan ma reetaan boo xam ne <laughs> Ismaïla yow da ngay font rek yow xamoo lu xam ma ko damay génn te noonu laa leen ñettamale ñettamal leen ko ñettamal leen ko bañ ne le le 14 maanaam le le lendemain bu war a 14 muy jour fête nationale ñu comme da ngay génn ci sa propre responsabilité di nga signé nga génn man leen jour fête nationale est-ce que bëggu leen maa nax ñu ne ma déedéet di nga génn ci àjjuma ji ni loola ba muy am euh, New York City, ci bis bi ñu signeel ma ma signé man tam maxam mii mooma nguufaan dugal ci taxi bi taxi bi yóbbu ci hôtel ba ñu jël pousse pousse hôtel bi dugal ma ci néeg muy mu mardi bu jot ak bu hôpital de jour parce que sa poumon may nga jël avion ndax ci agression bi dafa euh bi sama côté yépp damé dafa euh dérène bu duggoon ci poumon mu def liñuy tuddé hémopneumothorax ñu traité ko won mais traitement bi dess mu am lu coagulé wu di infecté poumon bi ba indi rechute jamono euh ñu wax mané ma poumon yi nga yore mënta jël avion faw nga def fi weer xam nga kon ñooñu génn nañ ci fa fanaan <laughs> yok nañ dat ba ah waaw légui talata bu jot nga ñew aljuma bu jot nga ñew Euh, bu boobaa suñu demee ba mu def weer ñu seet ndax man ngaa jël avion man leen dinaa génn rek booba maa ko wéer ci ñaari yëf li sama way juru jigéen wax ak man tama ni mooy sama meilleur antibiotique ak li suñu alaaji baara mbàkk fàllu euh, wax ci loolu ñëw mhm. euh, tudd nga ko léegi agression bi ñu ne xëy Sénégal adduna gépp ñu ne dañoo agressé Talla ñenn ñi sax ñoo ngi dute ba tey ci nax agressé nañ parce que ay marto man jàpp naa ne xajul ci nit mhm. ndax mën nga ñu ci indil ay leral yu wër yo xamé né yow mi lañu jakkar jàkkaarlool tay diko déggé sa gemme nga xamné fi la wax ji franco la yow tay wa damay dalen ci li ñew ci loolu gis nga biñ ma yobbo aljuma samedi ay gaaw dibeer di dimanche altiné talata ci suba maxaa ngi ni 1 km la dox dem hôpital té kéro bu may génné ci aljuma ji mënumaa waccé sama bop lal bi aljuma ja ma dellu hôpital de jour médecin yi ne ma ñibbil maanaam weer wa doon na une semaine xam nga lii du liiruma ko ci journal dégluwuma ko ci rajo seetaanuma ko ci télé maa ko dundal sax bopp kon euh, da pour prouver ne yàlla rek a fi ne maintenant ci wàllu ama jëmee agression tey jii yàlla dogal na dama leen a jéggal ñi ko def ak ñi leen yoon te ñoom ci seen bopp xam nañ ko ñëpp xam nañ ko yemuma ci jéggal leen mais jéggal du effacé ak. waaw euh, du du fàtte. waaw mais jéggal te jéggal bi dëgg la ci man ndax 5 octobre bu jot saa yu ñëwaatee damay ñaanal samay xarit yi jiitu kaamil te ñooñoo jiitu ci ñi ma attaqué woon dama leen ciy ñaanal. mais ñi la attaqué woon fu la attaqué woon. alors xam nga li am mooy ñëpp dañ naan régal la. Mhm. du régal fu mu. dafa fekk bis boobu dama jóge régal ñu commencé ma fa toppee. ba soo jógee Régal mel ne ku jëm yoonu ENEA. école ba Carrefour bi ngay njëkk a jot avant ngay egg ENEA Carrefour bi ngay jot sax parce que moom benn Carrefour la euh, foofu la lépp xewee. da doon dox bu ma doon bu ma doon nettali agression day yàgg day gudd. ci même donte yàggul. mais ci nettali bi pour mu leer. li xew day gudd. Euh, mais fa lañ ma doon toppe am ku leen gis ne ñi ngi may topp ku tudd Amar. Amar dapma ne grand tala grand tala est ce que auto balé ci ginaaw yena and maniko dedet mune ma yow la top topp. te boobu dox maniko yalla baxna waw bobu na dox bobu da fekk sama soxna mi ngi tolon ci digënté ba nek presque à terme sama soxna ma woo ko di sét nu mu def mune ma dafa bëgg ñëw fofu pour am yum fa indi ak yu jël ta du len attendre pour yéege len ma war ko kon xaar ci buntu euh, cité bi pour bu ëndé ay bagage ma jappalé ko mu yéeg jëlal ay bagage am waat ko ci suuf. diggante bi pour gérer temps bi ma ne naa ko commander glace ñu yeex maa jox glace pour wax la xere ñu yàlla maanaam yeex boobu ñu ma yeex a jox glace bi. bokk na ci non bokk na ci li li li échoué loo plan bi biñ ma ko joxee ma téye ko di dox di dem tombeeg mu am amaar moomu euh, am ku ko waroon a jël si fekk mu taxawoon ci buntu kër Cheikh Béthio Thioune ci euh, ancienne piste. koka ne fofu foofu dafa lëndam xaar ma buntu regal moment bi muy exi buntu regal tombe ak may dem mu nan gardien bi ke du dem du talasi si waaj en ah, kay mu gis ñu dugg ci ben auto frapper porte di ram di ma top mu xamne ñi bu don bu don bu don mom la andal mom du nek mom dong di dox yoré da mbuus ñom ñepp ñu dugg ci auto bi mu ne kon ñi duñu xelam ñaaw mu traverser tal bi dem benen bord daw ba tolok sama niveau traverser wat grand tala grand tala Ah, ndax oto ba la yéen a ànd ma ne ko déedéet mu ne ma yow lañ topp ma ne ko yàlla baax na ne ma ah man sa benn rakku benn voisine laa mën naa ànd yow ñu ñëw boobu boobu bi ñu ñëwee ba ci Carrefour bi comme tardé nañ ma jox glace man jàpp naa ne sama jabar njëkk na ma ci ci buntu cité bi te diggante foofu ak cité bi su fekkoon dama ko daw lu oto bi ci ginnaaw yéex yéex gaaw gaaw maa ko fay njëkk waaye ndegam sama jagar njëkk na ma foofu ak état bi mu ne man pour jóg ne damay sauver sama bakkan dina mettre en danger sama jabar ak ak ak suñu doom jamais de la vie mu am ben rocher bu nekkon ci carrefour bi ma tok xaar le da xam bu dee da ngay dé bima togué Amar comprendre wul ñee di ñew ma tok mais mom ci boppam mënu ma ko leeral lu ma tok parce que wóoluwuma ko ci nono la amé ko wacc ci auto ba ñu yabal ko pour mu jéem sét est ce que dama yore arme lutax tax li ma toogloo mu mel dama len di défier ñooñu kooka mo ñew dugg ci boutique bi bi muy genn Amar ñëw ak mom dënn ba xamé ko bu baax mu nekk benn gros bras bo xamné ne ñing ko recruter won yof kooku mosuma ko tuddu ci agression bi ngir bu ma ko tuddoon moom lañ doon rey féetale ko yëf yi ndax du won kenn ci ñom motax tax ko tudd alors euh, légui nak koka genn dugg ci mbedd mi ndekete man suma ma damay sauver sama bi baña xalat sama njabot mbedd moom mooy dugg fa lañ may reyee ndax ñi ma doon topp il n'était que des guetteurs et des rabatteurs mais ñi ma waroon rey ñi ngi woon ci juma rawaan bay alhaji rawaan bay bi nga xam ne moom lañ doon tabax ci jamono yooyu foofu lañ ma doon xaar ñooña ca leen waaj a avertir ñu génn nag ñetti bal dem na fa ci lañ tiré pour dàq nit ñi premier coup de feu dóor ma martu bi fi ma am trois fractures fii sur la mâchoire gauche bi affaire bi jeexee def nañu def nañu euh, rajo trottoir foofu laaj ñi fa nekkoon ñëpp Euh, ba fajar ba kenn ki nga xam ne moo doon jaay foofu sandwich daam boobu mi ngi naan leen bu xeexul woon nañ ko rey xam nga man kooñoor laa aw ma kattan mais yàlla roof na ma kattan boo xam ne maa xeex ak ñoom ba ñu traversé tali bi. dem de dem dem de moo tax damaa bëgg nga gëm ne damaa bëgg nga gëm ne yàlla yàlla mooy yàlla. mais Talla dóor la xam nga tey ji àjjuma la Ismaïla waaw. Ismaïla maa ngi ñëw. man de ku ma dóor damay bañ ñu sorxo sorxo loo xam ne lu sérieux la. am bëgguma ci woon a wax. Mhm. dugal nga ma ci il faut ñu wax ci euh, bu ñu demee ba ci beneen beneen booru tali bi xam nga marto bi maa ba dóor ko kenn ci ñoom lan moo ma may kattan boobu dama ko xam mais li am solo mooy nan la ñu xamee ne marto am na fa loolu ñu jaaxal gendarme yi bu ñu ñëwee xam nga loolu yëpp jël nañ ko xam nga loolu dañ ko expertiser xam nga j'ai eu trois fractures sur la mâchoire gauche yaa ngi dégg euh, ak yeneen ak yeneen yoo xam ne su procès amoon yooyu kenn dootu ci discuter mais xam nga fii ci Sénégal dafa am lu am mooy euh, bu dara taxawee au lieu ñu wax ci li ñu war a wax nit ki danaan est-ce que diw agressé nañ ko xam nga fii Sénégal ni nit ñi di doxee soo leen toppee mooy maanaam nit bu deewee sax dañ naan est-ce que dee na. waaw mais koo dóor marto buñ ko suulee sax dinañ laaj est-ce que réellement moo ne ci biir bàmmeel boo ko génne woon ñu def expertise def analyse ADN dinañ est-ce que labo bi sax xam question bi xam question fu ne <laughs> naka ci réew bu démocratie ñu dal tentative la la waxuma sax agression mais tentative d'agression c'est un crime ngi contre n'importe quel citoyen waxuma homme politique euh, li ci am solo te la xam nga dafa fekk jamono dafa am ñu seen nga wax ni vous lay dundé xam parce que bu êtes pouvoir am jeex bu féké vous avez dafa ah yi de sap di ne ngi set. kon nañu ray ginar yi xam nga yi parce que c'est pas parce que ginar yi sap motax c' parce que bët mooy waaj a set moo tax ginaar yi di sab xam nga loolu looloo laa leen tontu. Euh, euh, euh, loolu leer na. wax nga ko buñ ko bëggee tiire day day sori parce que sens bi ñu am. te day mel ne tey day mel ne. jéggale bi du dëgg te dëgg la ci ñun. jéggale nga waaw loolu moo non jéggale bi am na. Mhm. def naa ko ci ñiy dund. Mhm. ci ñi nga xam ne dundatuñu. Mhm. at mu jot cinq octobre ma defal leen kaamil. ci loolu laa laaj ndax maanaam agression boobu muy dóor nit ay marto maanaam desul ay séquelles ci yow. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Déjà, qui, qui m'a donné maquillé ici Il mhm. y a quelque chose ici. Ce sais. <laughs> Mais je lui ai dit c'est ça. C'est vrai. Une autre chose qui est venue, je opéré à 9 heures d'horloge. Dans le Moudjou, nous avons opéré à 12 heures d'horloge. Il y a deux heures. 8 heures du soir, 8 h du goutti. Nous avons opéré en 2016, le 5 février xam nga nit bu fekkee da nga am xëtër yooyu xam nga poumon bi côté gauche ñaari lob la poumon bi côté droit ñetti lob la mais poumon bi côté droit dañ ma defal li ñuy wax double lobectomie muy lobe supérieur bi lobe moyen bi dañ leen dindi xam nga loolu séquelle la maintenant poumon day régénérer et nit ci boppam mën na dundee benn poumon loolu lépp

daal di may limal benn xale bu ko bu ànd ak moom ku bëgg takk soxna limal ma keneen koo xamante ni yaayam dafa tawat limal ma keneen koo xam ni ñun limal na ma daal ñoo xam ni moment bi mi may wax soxla ñooñu man pour man moom tawatam man mooy sama soxla mu wér itam mooy sama soxla mais valeur munul passé nga nekk ci moment yu difficile yooyu di xalaat ay yeneen nit loolu dafa ma marqué torop ci moom wax dëgg yàlla. man fa may liggéeyee ne di liggéey ci xale yi saa yuy def manifestation boo xam ne ñun danoo soxla ndimbal ci xale yi région bi waxuma la xale yi ville bi de xale yi région bi dafay yëkkati alalam def ca taala mënu mën naa koy ci taabul ne amul benn suuf boo xam ne benn mètre carré bu ñu ne la bii moo ko moomal ko amul luñ ko may mu jox ko néew ji doole ji commentaire. Euh, ci soxna Fat Kiné Dia mi don njëkk wax jamono bobu bima nekké hôpital mom dafa and ak sama rakki bobu njaga ñu dem ci kenn ku ñu tuddé serigne ma dégg nañ ko jox 500000 pour koku ñaanal ma yi dal ci kom ci ci ci téléphone ma len xana xanaa gëmu leen yàlla xanaa gëmu leen ngeen ni

faj koo xamante ni yaa ngi dégg dañ ne defa feebar xam nga bu fekkoon ne keneen daa dem ci moom si di lijjanti leneen mais ku feebar nga war a jóg ne danga nga war a def dara lu yow yaakaar ne mën nga koo faj ma xamee xam na ni jamono bi ma biñ ma évacué gul bi ma feebaree ñu di ma toogaanu di xaar xaar lan parce que bu jàpp nañu boobu jaraga fi ne euh, dem nañu ba ay kilifa ci boppam ñëw di ma wax naa waajal sama bopp euh, jamono boobu am na koo xam ne bokkoon na ci ñi daan ñëw ne daf may faj kooku balaa may jóge hôpital moom denc nañ ko. kon yàllaa fi ne. non yàllaa fi ne. man eh, dama commencé ba léegi loolu laa lay wax. Eh, waaw mais eh, Talla. ku la tudd tudd prison. choix la woon am destin. Euh, xam nga. ana Talla jàpp nañ ko. ana Talla tëj nañ ko. ana Talla mu ngi ci bi. waaw parce que xam nga bu fekkee da ngaa ci mbir euh, nga jàpp ne réew mi nga bokk ay nit ñu bëri sonn nañu nga mënal leen dara. ci jamono yoyu fuñu mëna waxé yombul won nak nañ waxanti deug ci jamono yoyu euh radio ak télé mom ben la fi won muy bi suñu boss waaw looloo fi amoon. d'ailleurs boo seetloo revendication jamono yoyu opposition moy égal accès aux médias d'État. dang ko gisé xam bu ñëk loolu mo doon revendication principale. kon su fekkoon ne jamono yoyu taroon na tar bo xam dafa laajoon ben taxaway bi. suñu nekké ci taxaway boobu lu mu laaj ma def ko. na dafa am solo aussi ñu leeral leen man mësuñu maa jàpp ba ma demandé liberté provisoire waaw ah, loolu moom dëgg wala def grève dana mësuñu maa jàpp mësuñu maa jàpp ba euh, sama ay nit man leen manifester leen ngir lan damaa jàpp ne citoyen la su fekkee ñi yore yoon nee nañu lii taala wax amul droit wax ko jaadu nañu woo ma su dee dañ ne lii taala def waru ko def ndax yoon bi tere na ko jaadu nañu woom bañ dem fa ñuy attee buñ demee fa ñuy attee <laughs> mais si je suis man ma dëgg dañ a su am dëgg